toute l'actu sur King FM. Mesdames, Messieurs, bonjour. Les brèves que nous démarrons avec les déguerpilles du stade Léopold Sédar Senghor qui décident de quitter le pays. Ils l'ont fait savoir ce dimanche lors d'un sitting. Ils ont mis en place un mouvement dénommé Collectif Bolo Sunureu, qui a pour objectif de se refuser dans les pays de la sous-région si l'État ne les trouve pas un site de recasement. Pour la quatrième édition du bébé Ashura, des triplés sont à l'honneur à l'hôpital régional de Kaolak. Ainsi, le fils de Cheikh Samba Diallo, accompagné d'une forte délégation, à offert des cadeaux aux parents des nouveau-nés. Pour rappel, la nouvelle année musulmane appelée tamharit est a célébré ce lundi 9 euh, septembre sur l'international les attaques contre les, euh, ressortissants euh, africains en Afrique du Sud ont conduit en vague d'arrestations. La police sud-africaine a annoncé ce dimanche qu'elle avait arrêté 497 suspects. La police appelle aussi le peuple à éviter la propagation des fausses informations sur les réseaux sociaux. Sport, basketball mondial 2019, le Nigeria est la meilleure équipe africaine et obtient sa qualification directe pour le tournoi olympique de Tokyo 2020 en battant la Chine par 86 à 73. Pendant ce temps, le Sénégal qui est déjà éliminé joue son dernier match de classement euh, contre la Jordanie, c'est tout à l'heure à 8h. Euh, musique pour terminer ces brèves. Aujourd'hui, c'est la fête de Tamharit Ashura. Nous vous proposons donc cette chanson de Mbaye Faye intitulée Bombo Tcheregi ». Écoutons. raje ko ndax mu xam sa njëg raje ko mani beese ko ndax mu xam sa njëg lëmbal bi leen di yëngal ku koy tëgg bu ko mbay jee tëggul kenn bomb nag La version Wolof de ces brèves, c'est dans une poignée de secondes. Yenigi a King FM 99.4. xibaar yi tënk lay doon dañ koy tàmbalee kon ak euh, stade Léopold Sédar Senghor ña doon liggéeyee ca wet ga nekkee fa ñëpp dañ leen fa daal di jëlee nag ñoom looy moo tax ñoom ni ki démb ñu doon amal toogaanu ñaxtu ci lan daal di xam ne ni ñoom sax dañuy génn réew mi ba tax ñu daal di taxawal benn mouvement duppeeku collectif euh, ànd booloo génn sunu réew loolee nag nee nañ dinañ ko def bu fekkee ni nguur gi ci lu yàggatul dara daal dinañ leen di utal foo xam si euh, dinañ fa daal di mën a liggéeyee ñeenteelu édition boo xam si ñu ngi ko ashura nag mooy tekki tam xarit ci wolof loole nag ñu ngi ko daal di ah, def tàmbale def ñeenti at a ngi nii maanaam ah, at mi nga xam si mooy at mu bees mu julli yi ku ci njëkk am doom bu rek ñu daal di lay fekk fa nga nekk daal di lay jébbal ay ah, neexal loolee nag kon njabootu ko Cheikh Samba Diallo ñoo ko doon amal ba tax nag ni ki démb ki ñu ci daal di nemmeeku ca Kaolack la daal di am moom sax ay seex la am ñetti doom ñoo fa daal la daal di am ñu yóbbul ko cadeau yu altine juróom-ñeenti fan ci wéru satumbar xibaar yi ci dendo afrique jappalé ni kon njombe mi ngay woy di am feulé ci afrique du sud ba tax tamit police dal di génné seen doolé jamono ji nak dal di fassiyéné tek doomu sud africain yi nga xam ci ñoo di def ñom lu ni mel ba fi sax euh, dal di nañ ci tek loxo lu toll ci ñenti témèr ak juróom ñen fuk ak juróom-ñetti doomu adama yo xam ci euh, ña nga ci biir euh, kasso ba ba nopi tamit police di wo ñi la di askan wo ñu and ak dal té bayyi kon xibaar yi nga xam ci dara wéru ci ñukoy jaarale ci biir internet bi walum tàggat tàggat yaram basketball mondial 2019 euh, Nigéria moom lañ daal tabb def ko mu nekk euh, pays d'Afrique bi nga xam si moo gën a xarañ ndax moom daal dinay jot ticket bi ko xam si moo ko yóbbu ci tournoi olympique Tokyo yu 2020 loolee nag li ko ko may moo di dafa daan Chine euh, juróom-ñetti fukki bal ak juróom-benn ci juróom-ñeent ci juróom-ñaar fukk ak ñett fekk booba moom Sénégal nga nga xam si daanaka génn ca ndaje ma ba noppi tey jii lay football match classement bu matcham bu mujj ci ci classement bi waxtaani lay doon bu euh, juróom-ñetti waxtu ci suba gi jotee musique la ñuy jeexle tënkum xibaar yi tey la feetu tam xarit di Ashura loole moo tax ñu dégtal leen woyu mbay Dieye Faye bi mu duppee bomb cere ji mi ngi noonu kon mbokk yi lii tënk la woon ci ay xibaar fii ak lu mooy benn waxtu dinañ fi ñëwaat ngir yeneen xibaar waaye lu mooy loolu kon King Morning mooy wéyal Al Ndiaye ak équipe am